waaw xam nga a tariqa al muridiya dafa am tëralin wuñ koy tëralee am ay principe am njiit loo xam ne bu xasee jiite fu waaye mën a bokk ci kër yi mooy seen njiit loolu nu lañ ko tëralee bu ñu kii mooy xalifa bi amul kenn ko mën a nekk ci biir a tariqa al muridiya ba noppi génn yor sa indépendance loolu du am léegi nag kon su boobaa lañ doon tëral ñoom mooy duñ seexal ku jigéen duñ jiital ku jigéen jàngaguñ ko bokk seetaanaguñ ko it kon li mu tekki mooy kër gu ci nekk ka fa mag mooy nekk xalifa ba xalifa ba bu jokk ci xalifa bi xalifa boobu bi bi ne ci xilaafa gu ci kaw ñu tuddee ko nag Serigne Touba ci des ñëpp nag cheikh yeeg ñooñu daal di ciy jàpp kon su boobaa bu xalifa bi xasee na nangam mooy am ku wàcc loola moom day taxaw nag dal wàcc nga lii jàmm na ñooy léegi nag ku bëgg a dox ci yooyu nag dangay dox ci ay ndigalam bu la na toppal kii nga topp ca kooka te xam ne la ngay séentu ji ci àdduna ak loo mën a doon topp ci kii moo ko gën fii moo ko gën fële moo lañ tëralee yëf yi jërëjëf ci sa laaj ba am solo